suñu Cheikh ca gàmmu soxna mu xayri ni soxna bu jigéen ba dafa ñëw ci biir saal bi fekk fi jëkkëram mu toog mu nu ko yëg nga ni mbindaan bi ëmb na nee na borom kër gi ni ko affaire la lu ko affaire am la mu ne ko waaw mu ne ko nee yaa ko ëmbal una cosa más a Carla. mu ne ko yëg nga ni dinaa génn mau gi mu ne ko sa affaire la mais li ci sëñ cheikh teg mooy bu ku kon jam ni la jëm mais du mu firi من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه